have to deploy close to 6,000 staff. This is a very big operation. Now, after deployment, on the 23rd of November, it's a cooling off day. This is a day of peace in the country. No one is allowed to campaign. No, one, no political meetings are not allowed. And on this day, people are warned and advised not to wear their party colors. This is a non-partisan day. It's a day where after a a very extensive campaign period. People can sit down, um, reconcile, and basically um, prepare for the 24th, which is, uh, which is our election day. On the 24th election, the voting will start at 7 a.m. and will uh, end at 5, 5 p.m. And uh, from the election, results will start coming into the administrative area offices. There will then be um, transmitted to the chairman again, who's the returning officer. He will announce uh, the results as they come in. And we hope that somewhere around the 25th of November, we hope before even midday on the 25th of November, we will know who is going to lead us um, for the next five years. Now, um, we would like to um, also say that the team for sensitization of the Commission for these elections is the Gambia decides be part of it. We've seen former um, uh, elections in the past where the voter um, population, the, the amount of vote, voters who come out to vote has been reducing. We would like to appeal to all Gambians. Voting is your sovereign right. It's a right that uh, we cannot take too lightly. If the Commission is doing whatever it can to make sure that we facilitate the, the, the, polling process as, as fast, to be as fast as possible. We expect every Gambian to exercise that sovereign right of his or hers. This is a right that belongs only to us and we don't share it with anybody else. The leader is going to lead this country for the next five years and we want every Gambian possible to make a decision on who's going to lead us for the next five years. So the Commission would like to take this opportunity to appeal to voters to exercise that sovereign right because if you don't, I think you will be letting down this country. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Sala. Eh, Badi mo lungali konton itong konton ruokola nata nyo fahamundi bengol la jang. Wo nyo fahamundi bengol nyo ma foloti eh, wairi ngajo ko karte fayo ba kanang aman jamfa. nkacha nyolo studio kono ale vice chairman le kacha kawo mo wonya Mr. Male Salati bitung ni oboraje Mr. Joe Kulibijan, uh, eh, Asylum Director, Member of training and communication la and anin Chokinolo, IEC la La lamin e jata atelom tundo la Carte fay kunya la doku latu, pour birkama tundo, anin Amadou Tal, wala Carte mu karte fay la pour KMC tundo, Bitung Babkar Ndong, Memo assistant eh, regional electoral officer ti par Banjul, wala be kolu yitandi la la taman sero la karola. wayri mankan ala en dalen fatan fatanta bitum min ya lonko eh, te a moyla te kuma kan moyla bare si taman sero sute sababu kar ndon fana na do ko be kala wolti ka itandi e la molula menu be wo karola bokke ñoo deglu ñu ngi leen di nuyu di sargal ci suñu waxtaan bi Eh, waxtaan bi tee nag dégg ngeen Mr Malick saala moo doon di waxtaan noonu mooy vice chairman ci IEC gannaaw Mr Sallah ñu ngi am Mr Joseph Koli wala jo mooy director of training and communication ci IEC bi foofu moom dinañu waxtaanal ci wolof ba pare Lamin A Jatta regional electoral officer pour Tundu Brikama bi dinañu defal waxtaan bi ci soose Amadou Tall eh, koo xam ne mooy regional electoral officer pour KMC moom dinañu waxtaanal ci Pol. Babacar Ndong mooy assistant euh, regional euh, regional electoral officer pour Banjul moom nag mooy wane waxtaan bi ci euh, niñ ko waxee sign language mooy am xam nga yàlla daf ñu tagga emuñ ñeneen ñi duñ mën a dégg wax waaye dinañ mun a xam boo leen xaymalee boo leen wanee li ñoo waxtaan ni nii ñoom noonu lañ ko jëlee moom Babacar Ndong moom mooy liggéeykat boobu kon nag li ñoo wax moom dina ko wane ci sign language Eh, léegi nag dinañ jàlla si Joe Colley eh, Joe fu mu nekk dégg nga Mr Sallah li mu wax loolu lañ bëgg a nga bamtuwaat ci eh, wolof suñu mbokki olof yi tamit xam lan la Joe wax noonu lan la <coughs> si pour élection bi ñëw nii. jërëjëf Moussa maa ngi nuyu askan bi li ehm, leen wax ne ñun waa AIC ñoo fi dellu si pour ay nit ñi waxtaan nit ñi ndig sànni karta bu ñu digmal si nii. réeróol mbir réeróole mbir ne amoon nañ voter registration mooy maanaam bindu nañ karta bindu nañ pour sànni karta buñ bindoo yónnee nañ kayit yi yëpp dem lu ñoo ooyee revising code léegi magistrate yi yëpp signé nañ euh, registre yi so maanaam léegi ñu war a sànni karta ci Gambia euh, toolu na toolu na ci juróom-ñaari téeméeri junni nit ak lu lu si tegu tuuti ñoo war a sànni karta euh, sànni kar euh, président bii nii suñu xoolee nii gis nañ ne yokkute am na ci ñu war a sànni karta tax na ba IEC ñu ne ñii ñëpp dinañ sànni karta ci njundee ak ñetti téeméer ak ñaari polling station mooy maanaam fu ñoo war a sànni karta di nga gis ne li yokkute bu mag la. Mhm. parce que soo seetoo pré euh, élection yu passé fu ñaan sànni karta toolu na ci euh, juróom-ñeenti téeméer ak dara. Mhm. waaye léegi dem na ba junne. ak li si tegu ak li si tegu. Mhm. soo gis nañ ne yokku yokku am na. yokkute léegi ñu ngi ñaan nit ñi ñu ngi ñaax nit ñi pour ñu génn si. pour ñu mun a sànni karta gi nii. waaw soo xoolee polling station bi nuñ ko nuñ ko nuñ ko séedaatle. waaw soo xoolee Banjul. fanweer ak ñeneent la mooy thirty foo soo xoolee tundi Kanifing ñaari téeméer euh, juróom benn fukka ak juróom ñeneenti polling station ñoo fa nekk nga dem tundi Brikama ñetti téeméer juróom benn fukka ak euh, juróom ñeneenti polling station moo fa nekk soo demee Kerewaan téeméer juróom benn fukka ak juróomi polling station moo fa nekk nga dem Mansa Konko euh, juróom-ñetti fukka ak ñetta moo fa nekk soo demee Janjanbureh téeméer juróom-ñetti fukka ak benn one eighty nga dem Basse nga am téeméer juróom-ñaari fukka ak ñaar ak benn soo di nga gis ne téeméer euh, junne ñetti téeméer ak ñaari polling station moo nekk euh, ci biir dëkk bi yëpp waa ci biir réew mi yëpp foofu la nit ñi waree saani karta maanaam ñun fu mu nekk nii si lu jublu nii mooy pour élection bi mu euh, ñu organise élection bi euh, soo bi fi tey tasaare nañ kayit yi ñoo ooyee nomination paper waaw ñu bugg taxaw maanaam ñu bugg a taxaw pour pour ñu sànni leen kat ñu sànni leen waaw ñëw nañ ñëw nañ ci AIC ñu ngi jël kayit yi ba ñu ngi dem ci biir dëkk bi pour ni ñi parce que am na certes yu ñu taxawal soo nit ñu ngi leen dimbali pour sànni carte boobu noonu soo soo gisee on the tenth We weer buy ñëw novembre. Mm-hmm. su amee fukki fan. ci la ñu nominate fu ñu and nag mooy suñu office bu mag mm-hmm. bi. nekk baatel Harding Highway bi. Mm-hmm. foofu la ñu nominate so nomination bi dina fan. Why didn't you dinañ what to bu candidate you were in you accent supporters yi. now uh, on the 11 mooy di suñ nominate ci i am not lu ñu ooyee public scrutiny of nomination papers. Because que doo ñu soo ñu joxee sa kayit yi. dañoo teg sa kayit yi waa AIC wala dëkk bi yëpp ku nekk mun naa ñëw mu seet sa kayit yi ndax sa kayit yi réglé na ne réglé wuñ ba mhm. fi tey euh, su loolu weesoo den suñ kilifa bi euh, suñ kilifa bi chairman mhm. dina endorse euh, mooy maanaam dina nangu sa nomination waaw ba tey lu ñu ooyee reconciliation of campaign sooy ñëw su candidat bi di ñëw pour bindu si. daf dee am leen lu mu dee binda. mooy maanaam lu moo doxalee campagne campagne am bi waaw du parce que euh, benn ka benn parti du taxaw. waaw ñaar parti wala ñetti parti wala ñeneenti parti. Uhuh. ñooy taxaw uhuh. soo léegi dañ leen di oo candid candidat bi ci boppam wala ñu koo taxawal. waaw waaw man manager manager mi campagne manager si ñu ñëw ñu waxtaan lu campagne bi di demee. parce que bu bëgguñ euh, benn parti dem Serekunda mm-hmm. beneen parti ñoo fekk ko Serekunda waaw waaw dañoo dañoo dañoo jéem ñu seet mm-hmm. naka la campagne bi di demee ba mm-hmm. benn parti duñ tasee benn place waaw ñiroo ŋaaroo du waruta am du waruta am ci campagne bi dañ war a campagne bi dafa war a dox ci anam waaw ci anam boobu noonu moom la ñoo seet moom la ñoo oo ñëpp ñu waxtaanee loolu noonu su ko defee ñu def campagne bi ci jàmm ak salaam <coughs> ak salaam waaw mel ni ki daal gox bu nekk su fa benn parti nekkee waaw beneen gox beneen gox wartu waaw beneen parti waruta ñëw waruta ñëw ci gox boobu waaw waaw mooy moo waral euh, reconciliation of campaign programme bi waaw den euh, campagne période bi euh, maanaam su weer bi amee fukki fan ak ñaar ba fukki ba ñaar fukki fan ak ñaar moom mooy diiri campagne bi mm-hmm. waaw su ñaar fukki fan yi ak ñaar